fii laa bàkki woon abil ajraas fii laa waye woon abil xayraat fii laa waye woon abil umanaa'i oh. jàmbar jaa ngi nii te mooy borom Miknaas ak Dardaas borom Faas Cheikhuna fii ñi toog fi la Seydina Cheikh defee woon xalwaam bi te yàgg fi lool doon sellal doon tarbiyahu ci digganteem ak boromam ngir xettali jaam yi yëpp. Alxaaji Moor gis nga jotaay bu am solo bi muy jotaayu ziyaara fii ci baytu xalwa bi nga xam ne mooy baytu xalwa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu nga xam ni. Euh, boo gisee bant bi ñu la won buum la daan jël takk ci baatam ngir su bañee nelaw rek tabaarakallaahu buum bi xoj ko mu yeewu ngir mu continuer deyaay la ak boromam ndax euh, jaamu yàlla guddi yombul wa min al leyli bi bihi naafilatan naafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaaman mahmuudan moom nag fii la ko ko yonent bi sallallahu alayhi wa takkale نيكو انا مربك وانت ولدي حقا وشيخك الابر كل مسند مايسا باي مايسا مام مايسا سرين فاترك جميع ما به اعزتا تقال لب تشوف لو ما سونيور ما جوخ لو لو خامني موسوماكو جوخ كين تي سونو بورو سما بوروم سبحانه وتعالى kooku moy Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu waaye da fay wonane rek Seydina Cheikh jamu katu yàlla la won Seydina Cheikh bo deglo li maam Hadj Mansour doon wax moy jamu yàlla guddi huwa dëhbu saalihin ayaa rijaalallahi xuubu laysa xayraallahi rabbu لن تنالوا البر حتى تنفحوا مما tuhibbu nit li mu gën a soxla guddi mooy nelaw te góor yàlla yi nag nelaw yi lañ doon jël di ko jaayante ak seen borom subhaanahu wa taala kon yal nañu yàlla fayal Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yal nañu yàlla boole ci dëgg-dëgg njabootam à travers Aïnou Mady TV. képp ku seetaan image yi rek yal na ko yàlla def sa fajuk aajo waaye yàlla baaxee bépp taalibe Cheikh mu ñëw fi barkeelu ci xadara bi barkeelu ci bërëb bi comme ni ñu ko defee ci ndigalu Chérif Abdoul Moutalib at Tidiane yal na ko yàlla may gudd fan yàlla may ko wér ndax lii fa tabaarakallaahu liggéey bu bu rëy la liggéey bu tedd la boo xam ne mu ngi koy jagleel maamam Cheikh Sidi Ahmad Tidiane waaye di ko jagleel taalibe maamam yi fa tabaarakallaahu yal nañu ko yàlla fayal yal nañu yàlla fayal Serif Abdul Muttalib at Tidiane yal na ko yàlla may gudd fan may ko wér yàlla rof ko kattan. ba liggey bi daj adina bépp taaliba sax fu mu meuna nek ci adina rek nga ñëw fi ci Abu Samaon ñëw fi ci beytu khalwa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ziyaare si ko fa tabarakallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikhul Tidiane Serigne Maodo si la Abal abbasi يا كنز المعالي ويا فخر الزمان بلا مثال ويا بدرا يشع بكل قطر ينير الكون يهدي للجلال فهذا قلب عبد ذو اضطراب يؤمل منك فيضا بالتوالي وما لي غير بابك من ملاذي أيا شيخي فجد لي بالوصال شيخنا التيجان ومن ينتمي عهدا إلى الشيخ أحمد تجاني من قادل تجاني من قادل أنام لجنتي